ixwaani wa sumalaa'i assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu innahu la yuwaddihuna min qarib dayfun karimun mubarak ayyaamuhu kaanat tudakkiruna ida nasina wa tunabbihuna ida gafalna innahu sayidu suhuuri fa huwa shahru sahaadati l insaani fi dunya wala ghira wala yaxiibu an kulli si xaqlin an sahra ramadan mawsimun gayru aadi li ahli tijaara ma li ahli tijaarati mahalla yaa ayuha alladina amanu ala dullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim wa lisiyaami fi lislaami taamuhu alladi yatazawaquhu aalu liman wa lahu madaaquhu alladi yastatiibuhu ahlu taqwa kamaalahu wa ruuxaaniyatuhu alcaaliya allati laa naqifu calayha illa fi rixaabi haadihi alshaciira allati faradaha alxaqu tabaraka wa taala ala cibaadihi almuminin attaa'ihin allazina yattajihuuna ila llaahi bilkulliya wa jacaluu ridaahu tabaraka wa taala maqsadahum al asnaa wa hadafahum al asmaa fa tuuba liman zaaqa liman zaaqa wa harafa fa faas fa faasa wa zafira wa qabla an axtima kalimati nuxayikum jamihan kullun bismihi wa nuhanni'ukum kama nubaariku wa nuhayi aljuhud adda'uba allati tabzuluha daairatu muxaddamati alxidma li injaasi wa injaahi haasihi aljalasat ramadaniya wa naqulu li jamihi al aadaai fiha baarakallahu lakum wa kullu aamin wa antum bi alfi xayr wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yéen yi mbokki lislaam yi mbokki ngi leen di nuyyu di leen nuyu ci turu alxalifatul am li taifatil muridiya di leen jot li ab nuyoom bu baax a baax a baax ak cantam ci liggéey bu rafet bii ngeen doon def tañ ànd kook jullit yépp ànd kook bokki taalibi yépp di ko liggéeyal lislaam di ko jaarale ci liggéeyal sëriñ bi ñi mi ngi leen ci sant yéen ñëpp te di ko rafetlu bu baax gan gu màgg la goo xam ne moo ñuy wa a tàggu gan la goo xam ne saa bu ma saa toll fii sëriñ bi dadaa binni lool foo toll dégg muy binni di wax ne sama gan gu tedd mooy bëgg a tàggu gan la goo xam ne bisam yépp dañu dañuy fàttali buñ fàttee dañuy yee buñ sàgganee ndax koor niñ ko diglee ni nga war a sàmme sa bët sàmme ko sa nopp sàmme ko say tànk sàmme ko saw làmmiñ boo ko ne defee bu koor jàllee da nga defaru te lu ci ne loo ciy bëgg sàggan ab addis wala laaya alxuraan dana la fàttali nga dellusiwaat bu fekkee yaa ngi jiima dog yoon wi saxaru ramadan ab tereet la boo xam ne bokkut ak tereet yi ci ku bëgg a yaxantu ci sa diggante ak sa borom loolu alxuraan nag naan yaay yaa ayyuhal lazina aamanu hal adullukum alaa tijaaratin yàlla waxtu ne am na yaxantu bu ñu defanteeg moom boo xam ne mooy ñu mën a musal waaye yaxantu ci mo ci sun borom ci wàllu ci koor benn yaxantu gënu ko tonawu koor ci lislaam am na cafka goo xam ne ñi ñi gëm ñoo koy mos am na njar mu neex mu àndal moo xam ne woo ñi ragal yàlla ñi nga xam ne jaar nañ ci xasiimatu gi mu bëgg ak iraadatu gi mu bëgg saabiqa ba àgg ci taqwaa gi tax koor jóg ñoo ko ciy am yaa ayyuha lladiina aamanu kutiba alaykumu siyaamu kama kutiba ala alladiina min qablikum ndax lan laallakum tattaxoon koor am na roxaaniyaat yu kawe loo yëg ci sa diggante ak yàlla loo xam ne mëneesu koo yëg ci lul bi nga def sha'iratu ramadan sahiratu ramadan bi nga xam ne ñi nga xam ne bëgg nañoo wuyu li yàlla digle ñi nga xam ne jox nañ seen lépp sun borom ñooy mën a am loola ñi nga xam ne fab nañ ngërëmul yàlla def ko muy seenu jubluwaay ba gën a yëkkatiku seen itti himmatu himmatuhumul oliyaa daal mooy am am ngërëmul yàlla hadafuhumul asma seen seen jum ba gën a yëkkati mooy am ngërëmul yàlla texe ñeel na képp koo xam ne nag fexe nga ba mos lii ne ci ramadaan ba xam ko kooka texe na tuufu na yàlla na nu yàlla defal ñun ñu ñu bokk ci ñi nga xam ne nangu la nangul nañ leen nangul nangul ci weeru ramadaan nag mooy bu jógee li nga doon jàng ci weeru ramadaan di ko jéem a tàggatu nga jóg li des ci at mi nga di ko tari mu bañ a jógaat ci yow bu boobaa mën ngaa rafet njort ci ne sa koor nangu na bu jeexee nga daal di jeexal léppi koor nag yal na ci yàlla musal na la wóor ne raasib nga hmm. imtihaan nag nekk ci raasib baaxut yal na ci yàlla musal kon yal na nu yàlla dimbale ba liñ ci jànge ñu wéyal ko ci man koo tari ba faw bu ko defee nag ñu ngi sant ñi nga xam ne ñoo doon waxtaan ci weer ci ngoon yi ak berne yi nga xam ne ñu ngi ko ciy def iftaar yi nga xam ne ngoon gu jot mbooloo mu jullit doon na ci eh, doon na fi dog si muy mbégteem lislaam lool it ñu ngi leen ci sant yéen ñëpp di leen gërëm di leen xamale weeru ramadaan de sëriñ bi daf ko fonk lool lool fonk goo xam ne moom li ci waxal boppam yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bila adadi gan la goo xam ne sëriñ bi dafa wax ne da koy dikkal da koy indil mbég di ko indil ak tëbb ci digganteem borom mooy luy dolli ko maa ngi lay yaatal di la dalal te amu fu ma ko yemale laa silta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi qirat taaati wassadadi yàlla boo dañ di gan gu tedd gu ñuy nemmikusu goo xam ne waxtu wu ne dañ la teral di la berndeel ci ay topp yàlla akum njub inni uhibbuka hubba dhaati dhat talabin min maliki fiika isaadan bila awadi maa ngi sàkku maa ngi lay bëgg ni ñuy bëggee jëmm loolu kenn musi àgg ci kor ni ñuy bëggee jëmm la ko sëriñ bi bëggee di sàkku ci sun di borom nag ak texe goo xam ne du ànd ak dara lu dëng mu mu mu wax mu wax ko ne mu waxaat ko feneen ne ne ko wasat bi hubbiika hubba zaati yaa amali wa kun habibiya yowma alxawli walkamari na nga seede ne bëgg naa la ni ñuy bëgg jëm yow sama yaakaar nanga nga nekk di sama soppe nag bu ñu àggee ci yowmul xawli walkamari mu yowal xiyaam bu boobaa na nga fa nekk di sama soppe kon noonu la toll fi sëriñ bi moo tax ñi woor bu ñu wooree la hadiis ba wax moom leen sëñ bi woyal bu ñu wooree ba woor gi jeex lakum la dal futóori wal yaa xawmi furxataani bittiqaa'i sa taalamuun anna rabbakum karim wa anna indahu ujuran laa tadim chakartumullah ala chahri siyaam sa tadxuloona jannatan doona iyaam bu ngeen dogee ak bu ngeen di dajeeg suñu borom bu ci ne mbégtem boppam lay doon saa boo dogee danga nga am mbég saa boo dayeg sa morom da nga am mbég te loolu addis la sëriñ bi wayaale ko ci na xam ne suñ borom ku tedd la te yor na ay tiyaaba yu rëy yoo xam ne ku mu fay nga fàtte coonob la nga doon def kon nag sant leen ci koor gi ngeen doon def da ngeen tàbbi àjjana te du ànd ak ku mar ndax àjjana am na bunt boo xam ne rayaan la tudd te ñiy woor rek ñoom la fa suñu borom di jaarale kon koor lu rëy la kon nañ ci gën a góor góorgóorluwaat ci gën koo fonk di ko tatbiix ci suñuy aqwaal ak suñuy afaal yàlla na nu ci yàlla jàppale bu ko defee nag ñu tënkal leen rek tuuti ci waxe sëriñ Touba sëriñ bi dafa waxoon ne sëñ Demba Kebe ma jële fi sëñ Abibu Mbàkke mu ne sëñ Abibu mu nee na sëñ sëñ Demba Kebe la jëlee mu ne sëñ bi mas naa toog ba mu yàgg mu ne wala takun min alxaafilina hinda niyati ndax innahu xalimu bi saati sudóor yi min al min alxaafilina hinda alxawli ndax qad samiha allaahu wala takun min alxaafilina hinda alxawli hinda niyati hinda alxamali waaw moo ko ñetteel min alxaafilina hinda alxamali innahu bi ma taxmaloona basirun booy wax bul sàggan booy yéene bul sàggan ndax innahu alimun bi zaati sudur li ngay yéene lépp yàlla nga koy xam booy wax bul sàggan ndax xadd sami allahu ndax dégg nga loolu jigéen ji doon toog fi yonent bi di wax rek di dag di ji daal ak mu jaadal toog moom rek fi saa su ni ko alxuraan yi tontoo kon sun borom ngi dégg xad samiha allah qawla alladina qaalu inna laa faqirun wa nahnu axniyaayut xam nga ne sun borom ngi dégg kon booy jëfit dee looy jëf na nga ciy bàyyi xel yàlla xam ne mu ngi lay gis innahu bimaa ta'maluuna basiir loolu sëñ bee ko wax sëñ Banji Njaay moom it moom sëñ bi Mbàkke laa ko dégg ginnaaw bi nag sëñ Modou Racide Njaay wax nee na sëñ bi nee na ba mu njëkkee gis sëñ Banji Njaay yoon woo ko njëkkoo gis dana ko saw saar toll mu ne ko yaa ayyuhan naasu ttaqu rabbakum inna zalzalata saa'ati shay'un 'aziim sëñ bi daal di waxaat baat boobu ba ñëpp riir ba ku fa newoon ci jataay bi di lox ndax ni siñ bi waxaat yaay naa si taqwa rabbakum ngir mu digal leen ko ñoom ñëpp nga xam ne daa soppi fi mu ko toll fi mu nekk fay say saar da koo soppi muy ndigal ci ñëpp inna salsalata saati shay'un azim sëñ bañ ji yaay nag nee na foofee ma ko njëkk gisee ba ba ne ma ko noppee gisee ëpp na fanweeri at jataay yi ma amaat ci sëñ bi yëpp ak bu mujj bii nga xam ne laa mujj am moom nga xam ne daf ma damaa toog ba jëf ba jóg mu ne ma toogal mu ne ko mu ne ma bu lëf dox sa digganteeg sa borom ma toogaat mu ne ma bu lëf dox sa digganteeg sa borom ma toogaat ma digluwaat ko ma xam ne dara la la bëgg jàngale mu ne bu lëf dox sa ndimbal suñu ma ne ko ah Mbàkke ko ñu gën a loon leeral dañu gën a xam mu ne ko yàlla boo ko waxee ne ko ana rek mu ne la maa ngi nii sëñ bàññi ne ko ma ne ko nu ñu koy waxee ana mu ne ko da ngay nekk ci li mu bëgg ak i ndigalam lu lay waxee maa ngi nii mu ne loo bëgg mu defal la kon nag yàlla na nu yàlla dimbale ñu jariñoo ñaari tomb yooyu ci ci ci zaahir ak ci baatin ñu ngi leen sant di leen gërëm mbokk la xam ne wantum bi xëy na salaamaaleykum